diggante réewum Sénégal ak dëkk yu ko jege xaritoo gu sax dàkk lañ ci yàgg nemmeeku waaye ci diggante googee la ñuy jaarale ay sinébar ak yi ni mel. ils pour nom. waaw ñu ngi ko gën a xamee ci wàllum xeex li nga xam ni mooy trafic sinébar ak ni nga xam ne mooy nit ñi ak li nga xam ne mooy yiir wàllum frontières yi waaye itam xeex li nga xam ne kat yeneenu xeeti defin la yu ñaaw maanaam trafic médicament ak li nga xam ne mooy ay ngànnaay woyof yi ak tam li nga xam ne mooy di soppi koppar. loolee tax ba réewum Sénégal ci lëkkaloomam ak Union européenne taxawaloon ab plan gannaaw bi nga xam ne ne bu njëkk ba jagleel nañ ko xeex trafic de migrants ñu tàmbalee ñaareelu plan opérationnel bi. waaw ñaareelu plan bi dafay daal couvrir ci euh, domaine d'activité yoo xam ne dafay laal ay domaines yu bëree bëri lu ci mel ni wàllum euh, criminalité li nga xam ne day jéggi sax frontière waaye loo xam ne tamit day fexe daal ñu gën ko teg ci euh, kaaraange Sénégal. et multiforme. bi le plan li ko tax a jóg nag moom mooy yokk xarañteefu force de sécurité yi ak acteur institutionnels yi ngir ñu gën a mën a jàmmarloo ak bépp ñaawteef bi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal diggante réewum Sénégal ak dëkk yu ko jege. quant à vous. maam waaw yéen ñi nga xam ne ñooy takk der yi damay sàkku ci yéen rek ngeen dugal seen loxo ci activités yi nga xam ne moo delluwaat ci euh, sàkku ci projet bi moom la ñu jëmal tey jii. par ce gannaaw bi nga xam ne ni gendarmerie nationale bu Sénégal jàpp na fan yi ay waay ñawteef yu bëre yi nga xam ne ni dañoo yoroon ab dorog jëwrin gi yor biir réew jàpp ni faaw rek ñu baral xeex mi ci diggante Sénégal ak yeneen réew